l'actualité aussi par rapport aux arrestations mais nga nga répondre par rapport à contumace max bi. contumace bi une personne bo xamné xam nañu né mi ngi ci possibilité pour dem defuñu ko pendant 55 jours ñu barricadé ko. Hmm. ñu droit li nga dégg nañu ko ci hmm. contumace lan dit ça. qu'est-ce que vous avez dit. contumace. oui suis le condamné pour un délit. Ken Gisoula Non. Ah oui. Je le condamné pour un délit. D'accord. En l'occurrence, délit de corruption de la jeunesse hmm. ou autre délit. Lors il le condamné. -hmm. Yo, am nga deux possibilités. Ben bi mooy nga jóg ci sa coobare dem ne yéen a ma condamné deux ans ñu ne waaw mu le man de pour naa pour ngeen pour tëdd sama ñaari at hmm. contumace bi daanu Bon, na. non. très bien bon kon que fait Il l'état bi li tax ñu condamné la li tax ñu la cause beaucoup tax ñu les ci. jàpp la ma question. Les léegi li tax ñu condamné la pendant 55 jours ñu ngi la barricadé. Mhm. donc xam nañu fi nga nekk waaw wala dette. Wow. mais pourquoi il n'a pas été arrêté pendant ces 55 cinq jours. non xam nga état su ne dafa war a jël benn décision. oui comme arrêter nit wala mu war poursuivre benn nit état dafay évaluer tous les risques sur l'ordre public bi mhm. mais état soo ko Il yow yaay jël sa responsable parce que soo defee faute c'est la stabilité nga daxaat ko

Dans Vous avez demandé des, des exemples, en fait. Donc non, non, non, des exemples, je parle des exemples. Attends, attends. Attendez, attends, attends. Non, xaaral après ngeen ci déliminer mais dama la il faut authentifier les exemples. xam nga soo leen di débattre. nga ne par exemple la wax. après da ngay mun am benn élément. nga ne li mu wax mi ngi nii. alors xam nga dans la question. ñii seetaan oui ñii seetaan ne eh Fatou Abdou ko wax kon lii lii la waxoon. mais alors que yow parfois li ngay wax de bonne fois. Uh-huh de bonne foi ban sa bonne foi il li nga wax du da wala nga fàtte. nga gindi ñu moo mais très bien non non xam nga gindi bi aussi non xam nga gindi bi aussi dafay neex. su fekkente ni parce que man man scientifique là. Mhm. Euh, gindi bi tam rek dawal sama xalaat wala li neex. dama bëgg aussi ñu génne élément yi ah, pour mieux éclairer l'opinion. Mhm. mais soo defee interview. par exemple di insinuer les gendarmerie nationale police ñoom ñoo rey ñii ñoom ñoo tooñ ñii ñoom ñoo réeral ñii ñoom mais loolu ku ko wax mais mais mais mais loolu code pénal moom moo prévoir c'est-à-dire que c'est c'est c'est jeter le discrédit sur des institutions on soupçonne la gendarmerie d'avoir assassiné des gens loolu ku ko wax après yow da nga bëgg dem mu toog këram ñu ne loolu dara mais mais délit mineur yi monsieur le ministre. délit mineur waaw on à Mohamed. SOSP. <laughs> xaaral SOSP. def na liggéey bu am solo ba ba ñu bàyyi. ku SOSP. Euh, société civile la yi nga xam ne ñu ngi doon def ay démarches pour ñu bàyyi ñi nga xam ne ay peut-être ay tout tànk lañ te nekk ci biir kaso bi. non amul benn tout tànk. waaw mais quand je dis tout tànk mooy am nga âge bi mais. xale nga ci jëmm quoi. Euh, non non non xaaral attends en droit Mohamed am nga ko ne. waaw ci ci ci droit. xale dafa am. Oh. <laughs> xale mooy am. mooy 18 ans voilà ah, mais ñi am mooy 18 ans oh. amul kenn ku nekk. Ah, léegi ñu may wax déliminer dañ leen di jël. Ah. yóbbu leen ci éducateur spatial. d'accord naa waaw d'accord naa wala ñu dénk leen. seen papa seen yaay seen sëriñ daara. mais xale nekkul kaso. xam nga Alioune loolu juuma. waaw wax ne ay xale dama nekk kaso ñu wax ko mu ne juum na. donc moo tax boo bëgg rek ñu wax affaire yi ndànk. waaw léegi je reprécise je te redonne la la parole nga mhm. la am na ci nga xam dañ leen jàppale euh, ci manifestation yi koo xamante ni sax gis nañ fi koo xam ne da ngay xëy na bokkoo sax ci manifestation waaye euh, nga nekkoon ci moment yi nga xam ne euh, favorable peut ak ñu doon jàppeek yu mel ne ñu jàppale la wala ki nga xamante ni nii mu ngi doon ja jàkkaarloog takk der bi peut-être sànni xeer wala kii lakk lakk pëna man je sais ne am na ñu ci bàyyi ñu nga xamante ni société civile bi def nañ ci liggéey pour ñu bàyyi ñenn ñi mais ñooñu la ñuy wax monsieur le bu kaso bi feesee del del del del del ñooñu est-ce que duñu xool naka lañ leen mën a naka lañ leen mën a bàyyee waxuñu nag ñun koo xamante dafa dem kër jàmbur taal wala de butigu jàmbur taal yooyu moom yoon dafa war a def liggéey te ay la yowit opinion bi ñu ci bëri loolu lañ d'accord que ñooñu dañoo war a nekk ci euh, kaso dañ leen war a tekki tegi daat mais nag ñi nga xamante ne nii la def peut-être euh, des nañ lay jéggal ngir désengorger kaso bi nga xamante ni tey ay la yowin yaa ma ko gën a xam fees na del euh, ñu bàyyi leen ñu dem monsieur monsieur le ministre loolu rek laa wax de. ñaari tontu. waaw benn bi mooy. Hmm. suñu croiser les bras ñu ne. ku mu neex nga manifester Sénégal kenn la def dara ku mu neex nga dem toj ku mu neex kii ñi ngeen jàpp ñëpp bàyyiwaat leen kon de man du ma mun ñëw fi pour émission bi suma Mohamed ak Fatou Abdou invité man leen noo foofu wóorul parce que kat am na ay manifesté yoo xam ne dañuy baare tali yi di def man de du ma mun ñëw émission bi hmm. presque yow doo mun liggéey si mais jàmm ci réew sécurité loolu moo jiitu gis nga balaa ñuy wax ay leneen politique syndicalisme hmm. ak leneen d' abord amal jàmm li wolof di wax ludul dul jàmm ko gën état xamal nañ li njëkk soxla citoyen bala nga leen di jox lek ak ni yooyu naan parce que citoyen so leen defalee jàmm ñom mun nañu utal seen bopp lek mais d'abord defal jàmm donc l'état se soucie de l'ordre public lolu mo indi won mesure yooyu ensuite pour être concret xam nga lolu motax aussi may wax ne waxtaan bi parfois pour mu neex il faut ngeen di am ay éléments chiffrés pour yow actuellement ñaata nit lañu arrêté

1440. 1440. pour dire la si xam non 700 là. pour wàññi ko. 1440 tout à fait assumé. Hum. ku jóg du de da lay hum. ku appel à l'insurrection pour ñu renverser ordre bi dem palais génne président bi dañ lay hum. manifestation non autorisée nga génn manifester taal pëna dañ lay évident parce que c'est la paix c'est l'ordre et la stabilité mais nous ñëpp ñu jàpp xam nga ñaata ñoo actuellement en prison. 849. 800. 849. 1400. 600 génn nañu. 549. 549 ñoo précisément. 800 quelque. du société civile moo leen génn de. Hmm. non. Hmm. ñii dañ leen jàpp jugé leen mais jox leen sursis ñu C'est seen kër ñii dañu instruire seen dossier. gis ne li ngeen doon toppee jàll woon jëndi ñu relaxé leen. Mhm. ñeneen ñi dañu am liberté provisoire. Mhm. donc fu nekk nii huit cent quarante neuf personnes. d'accord mais xam nga da nga waxoon nga. non xaaral xaaral xaaral xaaral donc da bëggoon d'abord ñu. leeral leen ko bien sûr allez-y xam nga kaso yi feesul. Mhm. li ngay wax kaso yi mi ngi fees. xam nga huit cent quarante neuf mooy fees loo kaso. huit cent quarante neuf ci Sénégal yëpp.

on était il y a trois ans à 10 000. Après, il y a 1 000, 1 000, 1 000. Délinquance, c'est y a. Mais le mandat de dépôt, il y a 2% de femmes. Octobre rose, je profite de le 2% de femmes. C'est-à-dire que famille, c'est 278 sur les 3, 13 330 prisonniers. Ah oui 278, 278 soixante dix que ñoo ça veut dire que dans notre pays la délinquance elle est masculine. absolument c'est clair. il y a des prisons le quartier femme est fermé. le mm-hmm. ñaari il rek nga am cas xamante ne day am muy Liberté 6 ak mm-hmm. sinon feneen amul quasi quasiment Jigen. yi lu mais monsieur le ministre non aujourd'hui aujourd'hui c'est la journaliste face au ministre de la justice. mais et le professeur bien sûr à la fin le dinañ ah. très bien mais mais détenu politique yi nga xam aujourd'hui. non détenu politique Amoul, xam nga la détenu politique. oui détenu politique Moi, quelqu'un qui est arrêté pour des infractions politiques mais ñi a arrêté lan la. pas à une marche non autorisée c'est politique. Hmm. loolu lu politique. Euh, dégradation de biens d'autrui destruction de biens publics Nous, politique destruction de biens publics politique mais dit que vous avez dit que la moitié. que hmm. dañu far ci que est-ce que avez, coloration Madame, euh, taxul ñu politique Sénégal ci li xam man bu que judiciarisation de l'espace public. maanaam jàpp yi ni mu baree mandat dépôt yi nu mu baree ñi nga xam ne dañu far euh, parti bi ñu ak nguur ni ñu leen di tegee loxo. kon léegi ku far ku far benn parti toj buñ la jàpp. parce que dañ naan. moi je dis pas ça hein? ah ok wax parce que yaa ne dañ ko politique mais parce que ñi nekk PDS defuñu ko ñi nekk parti socialiste defuñu ko. ñi nekk réew mi defuñu ko. ñi nekk UDSR euh, defuñu ko. ñi nekk benn parti defuñu ko ñi ko def yow su fekkee sax yow su la neexee yow nga ne gisuma leen mais état bi daf leen gis dafa am fu ñu bokk bokkuñu PAI bokkuñu beneen parti parti bi ñu bokk bi ñu tudd Pastef ñu ne non non non bu leen leen jàpp parce leen jàppee ñu ne acharnement la état du noonu yow tamit su fekkente ni defuñu dara kenn leen jàpp mais am na ñu nekk Pastef fii ci dëkk bi kenn jàppu leen mais xam nga bu euh, aujourd'hui vous ñu fekkee dañuy def euh, euh, da nga comparer tout à l'heure ci ñi nga xamante defuñu dara comparaison pour comp ministre de l'intérieur moom moo jël dogal pour que ñu génnee ko au Sénégal. Expulsez quoi? Expulsez quoi? ko mu dem. Juan Branco dafa am ñoo le maire de Sangalkam Bentali.